ci anniversaire actrice bu mag boobu di Nabou Leye tey nag ñu fekk fi koo xam ne kenn du ko présenté Sénégal muy Django Django actuellement yow boo nuyoo ñi ñi lay seetaan pare looy def ni waaw damay damay damay ànd a góor yàlla yi ci seegum café gi rek waaw ci loolu rek lañu nekk pour l'instant nii du xool di xool fu mu toll waaw. ñu fekk la fii tey kon dañ lay laaj sa diggante ak Nabou Leye lan la. waaw Nabou Leye moom sama sama nit la sama nit la sama xarit la yàlla moo ñu boole ñu bokk projet di ci liggéey. mais ci biir projet bi yàlla daf ñu dénkaat leneen yàlla daf ñu boole Serigne Saliou yàlla boole ñu man ak moom ku nekk bëgg ndayam bëgg bëgg juróom donc loolu moom moo gën a dëgëral suñu diggante waaw macha allah Serigne Saliou moom nga foofu laay taxaw parce que Serigne gis nañ ne jamono jii moom ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon ñëpp ndaw ñooñu Serigne Saliou la ñuy bëggee waaw loolu am na loolu loolu juróom moom moo ko jagleel ndax euh, moom wa juróom moo defar mag ñi mais moom moo defar ndaw ñi te ñun dañoo bokk ci ndaw ñi mu defar waaw loolu loolu jagle la loolu yàlla moo ko jagleel moo tax ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp wékk ko ko waaw noonu noonu rek la demee. kon daal la mu doon wax ne na na Serigne Touba defoon ca mag ña moom laay def ci ndaw ñi daal mooy firndew. loolu am. loolu am loolu la loolu la tàmbali te liggéey bi mat na sëkk mu ngi koy mu koy matal bu baax baax a baax a baax ah ñun boog ñun moom lañ jox suñu bopp waaw ñun moom lañ jox suñu bopp. ci jàngoo ci boppam la laay ñëw tey ñu gis la yow Baye Fall ma bi nga nekk tey ci benn projet boo xam ne jàngoo tey fu mu génn ci Sénégal ñëpp xam nañ ko waaye jàngoo yor jukkay Baye Fall ji ba tey foo ko fekk mu mel lay mel parce que keroog fekkoon nañ la ar ko géej waaye tey ñu fekkaat la fi mais même person bi ngay gis. waaw non noonu rek lay demee xam nga xam nga jàngoo moom yëfu jàmbur la ñun ñu ko ñun lii lañ moom lii mooy suñu nature léegi nag yëfu jàmbur la dañu koo jox rek ñu doon ci liggéey pare nañ ci delloo nañ ko léegi ñu ngi ci suñu bopp bu leneen ñëwaatee rek ñu jëlaat ko liggéey ci buñ paree delloowaat ko waaw projet boobu ngeen nekkoon moom naka la demee waaw projet boobu comme comme comme ni mu demee rek gars yi gis ñu euh, sentir ñu pour ñu liggéey ko ñu ñëw liggéey loolu gis na war nañ waaw yaakaar naa moom mooy moom mooy yaakaar naa moom la àdduna bi yëpp di bàyyi xel noonu la demee la ñu wax tey sa doomu ndey muy Nabou Leye ki ñu tax a ñëw fii mu jóge fu sori parce que gisoon nañ ko série dikoon ay jamono waaye ba dikoon jeexee ba tey Nabou Leye mi ngi woon ci fecc bi ñu jékki-jékki gisaat ko ci série bi moom mu doon benn yaay faal tey ñu fekk la fii ci këram yan jikko yow nga xam ci Nabou Leye tey ba tax nga jàpp jikko yu baax yi mu yor moo tax ma ñëw fi ndax man yàlla natt na ma xaw ma dara aw ma dara munu ma dara mais demalu ma ñëpp yàlla na ma ko mais moom ni mu mel ak ni ko yàlla bindee ak dal gi mu am ak taalibe gi nekk ci moom looloo tax ma ñeme ko loolu moo tax moo tax ma ñëw sëgg fii nii nekkal ko ci café gi euh, fekkoon fi ñeneen ñëw nag jàpp ci rek jàpp ci rek amaana am na ñu ma fi jiitu mais dañ fee ñëw jàpp mais Nabou Leye dafa nekk nit ku baax nit ku am dal nit ku am taalibe li tax ma fonk ko wax naa ko sànq dafa bëgg woy juróom te man loolu laa loolu natt boobu laa am nit su bëggee woy juram rek danga may moom danga may diriger parce que man loolu rek laa xam sama na woy jur moom rek laa am te moom macha allah yàlla may na ko loolu donc dañ koy ñaanal fi mu jëm xam na ko moom dañuy ñaan yalla mu mottalil ko yoon bi yaatalal ko yoon bi leeralal ko ba fi bëgg dem mu yegg fa ak jamm ak salam ko fekk muy muy def muy defar ginaar ngay defar ni wala ya ginaar lay defar ginaar. kon yow ya nek ci wañ wa gis nga loolu. kon da anniversaire bi commencé na ala daw. wa mu ngi neex. waaw lanu nabu lay nga yow. man nabu rakam la waaw depuis ginnaaw raay la man ñun ak mom ba fi ni yaay moo ñu yar ñoo ñu jangal togg. nabu xamul ñu bayiwu ñuy dox bayiwu ñuy wër. te fu ñu neex lañ koy woo heure bu ñu neex lañ koy woo man démb laa fi ñëw moo ma ko wan muy mag ju baax mag ju riis sama anniversaire lu daaw ti ci cent mille la may barki Serigne Touba Mbacke dama woor li may wax bu dul dëgg yàlla bu ma fekk ndog ngoon bi ma nabu lay joxee si bi damaa tiit te bokkuñu dara lu dul dëkkandoo bu yàgg rek mu bëgg ma def ma comme ku mu bokkal ndey ak baay kon li mu bëgg si bisam bi yàlla na ko yàlla may. yal na heure bii balaa heure bii déwoon yal na ko fekk ci biir néegu sëyam mu toog di sëy di ko fa na bu li mu bëgg moo ko xam yal na ko suñu borom defal nabu bëgg na yaa penda yërëm na yaa penda nabu bëgg na ñëpp ku dugg si kër gi rek nabu nga fi fekk barki tubaa Touba na bu waxul xamul kii la bokkal xamul bokkul kii ñëpp la yemale kon li mu bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal li mu namu ci aar bi nag bari na yàlla na ko suñu borom eggale ba ko mu eggale ba si kanam ak kanam. kon daal Nabou Leye bokkul ci artiste siiw rek daal di daal di fuuy. déggoo ma su ko neexoon mu fuuy dem jëli appartement waaye ñun fi ñu dëkk dañoo doy sëkk barke. barke Serigne Touba Mbacke yor na ko jëlee yor na lu mu ko defee mais barke Serigne Touba Mbacke loo wax mu ne bëgguma sori sama yaay barke Serigne Touba Mbacke kon yàlla na ko yàlla defal jàmm Nabou ci kaw ca kanam rek wajango jàngoo wax nañu léegi ne bëgg yaayam moo tax bëgg ko waa jàngoo moom dafa maa neex moom wax dëgg fa yàlla loolu rek laay wax si moom te nee naa ko doo sigi xool nit bu doon ni nga gisee ci film bi noonu nga mel dina doy waar waaye gis nga ko du sigi sax xool doomu aadama kon yàlla na yàlla def jàmm yéen ñi fi ñëwit yalla nañ koy teewee ay déwéni déwéni déwén xam nga nit di nga bokk ak moom ba pare réccu loo doon bokk ak moom fu ñu ko tuddee nga rus waaye fu ñu ko tuddee da ngay siggi ndax am fullaam di jigéen ju jàmbaare nag di jigéen bu mën góor ndax moom ni mu toogee am na góor ñoo wuñu ko bu togon nan suma don gor bu donon gor du def dara waaye macha allah muy nak di dom ju dom jubah ju bëgg ay way dom doom ju fonk ay way musta sori sama yaay ji di ya penda ya penda ak sama yaay ño bokk yaay waye nabbu fu ñu xàccee mu xàcc ak ñun fuñu ñu mu dóor ak ñun xébuñu tàyyiwul ci suñu bis buñu amé bis day ñew taxaw ba mu rafet barki dem lañ ma ngénte fi jamm gën da ñew xolal indi kopparam ba mu bëri xaarul sama jëkkër def de moom moo ñëw di def barke yonente bi sañ seel ma ba ma mel ni panaal defar ma ba ku ma gis di ma jaaw lekk rabu dex te bu ko neexoon mu ne ah siiw naa naa xeeb samay rakk waaye defu ko balaa muy def dara dina diisoog ñun ba pare surtout maa man mii balaa muy def na mën a jatu nangam ak nangam bu ko neexoon mu xeeb ma bu neexoon mu egg ci fi egg am na ñoo xam ne egg guñu foofu te dañoo fu waaw parce que parce que man fi may ñëw mooy nabu fi sixième àgg tey xale yi jigéen yu bëri bu fi seen six àggee dañoo dem lu ji appartement dëkk fa waaye def ko de fii da la ne ak ñun barki yonent bi bu ñu xëyee ñooy ràcc fii di ndékki di def ba mu baax bu ñu defee mburoog ton mu def mburoog ton bu ko neexoo bu ñu defee mburoog ton mu jënd ay ginaaram rangale fee waaye déedéet solul bàyyi ñu lekkul bàyyi ñu naanul bàyyi ñu. doon naa rëy reew ndax wax dëgg yàlla ay moroom ñoo fi nekk te lu dojuñu fenn melu ñu nen mais macha allah xam nga defa xeeb nag ba banlieue bi nag. di dem ca ña nga Almadi ña nga euh, Nord Foire ña xeet gu demee noonu waaye sama doom ji loolu dabu ko moom dafa ne suppura naa toog fii rek. bu ñu sombee ñu nag moom bu ñu ruyee ñu nag moom bu ñu amee ginaar ñu nag moom lu mu am nag andi na boo ngi ci ñu nag ginaar yi. mu ngi ci ñu nag di bi ñu ngi ci nag yu neex yooyu yu xeet yu neex yooyu nag fa fatu baari kàlla waaw. mais yéen daa mel ne dibi yi leen nabu di jox yooyu moo tax ngeen. doom yal ko yàlla fal te dafa bari jom. dafa bari jom xoolal liggéey moo koy guddooloo ci àll ba su liggéeywulee moo ñu jëkk tëdd yàlla naka ma tiim nabu de bu liggéeywulee moo ñu jëkk a tëdd waaw taxawaajiwul doxul ba yàqu waxul ba yàqu ñàkkul fayda wayadiwul ko am personnalité. waaw ah, te bu ko neexoon wax deug yàlla nag mu doxé nenen nag waye defut lolu mais dégg na nak daa bari problème sama dom yalla nak yalla la fal cat xam na la bo baxé am ful la da ngay am loy bañ da ngay bañ lu bon di bëgg lu bax looloo ko dal nag dafa bañ lu bon di bëgg lu bax looloo dal na bu lay man diko ñaan nak nag limu ma reen mën ji bu na man lu ko ëpp anniversaire am bu yaayam une semaine la mais même bu yaayam ñëwé ni la koy defal. buy anniversaire bi fi yaayam da nga fa yaayam dafa jógee umra wala mu jógee màkka bañ koy ganale fii yëpp day fees su ne la koy defal ah, ba daaw mëbalu yaayam yee moo koy wàcceel wër na rasulullaay ko xam Nabou Leye nag daanaka képp koo xam ne dégg nga ay waxu Nabou Leye wala ngeen di fréquenté wala ngeen di toog sama yaay la lay wax tey ñu toog ak nag ki nga xam ne moom mooy yaayu Nabou Leye yaay booy buñ la ginnaaw buñ la lumee pare buñ la laajoon kan mooy Nabou Leye ah asalaamaaleykum maa leen di nuyu di di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm salaam wet wér sutura ak teraanga barke Seydina Mohamed ah Nabou sama doom la muy benn bu jigéen rek nag waaw sës nag ci man rek nag taxawu ma wallaay côté bu nekk taxaw na ma ko sàmm ma dëgg yàlla fonk ma waaw lu ma bëgg moom la bëgg lu ma bañ loolu la bañ lu ma neex rek moo ko neex lu mu yor maa ko maa ko lekk. lu mu yor nak man la ko jox makay koy ñaanal yàlla jàmm salaam biir sutura teranga ko ñaanal bu la fal ko cat bu ay ak bët bu ay ak lamiñ bu ay ak xel mu ay di ko ñaanal yalla may ko yokute ak ndam ci barke sayyidina Muhammad sama dom yep nak ñom ñoo baax taw ba ci mom ba ci caat ñom ñëpp baax ma tek sama place ñom ñëpp ñoma ma bëgg waye nak mom muy jigen raw ci nak sos ci man rek nak taxaw ma lool nag taxaw na ma trop ma koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla jàmm salaam wér sutura ak teraanga ak yokkuteeg ndam ci barke Seydina Mohamed lépp lu mu dëkk yàlla na ko daan lépp lu mu dëkk yàlla na ko daan waaw yàlla ba mu gis dara lu mu ragal fonk na ma bëgg na ma mënoon naa dem wuti appartement dëkk feneen waaye dana fi sama yaay nekk fa laay ne sama wetu yaay fa toog lu sama yaay bëgg loolu laa koy defal. lu ma bañ lu mu bañ ma bañ ko lu mu bëgg ma bëgg ko lu ne la may defal daaw jéeg nga matériel yi à part moom moo ma ko jëndal. moo ma jëndal laal armoire coiffeuse sama anniversaire chaque année sama anniversaire lu nekk lay def ci man waaw moom magam yëpp nag ak rakkam wax dëgg yàlla. ma leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm salaam xéewal wér sutura ak teraanga bu yàlla la lafal leen cat musal leen ci seytaane musal leen ci ndong-ndong musal leen ci ñaaw def ci barke Seydina Mohamed ak njaboot gépp nag. Ya boy tay nga am dom bu melne la Labou muy tourner ci série bobu di en plus nga xamne tay sénégalais yépp ko xam sénégalais bu nek nak ni ñi interpréter nit ko xamne dafa siiw yow ngay dégg lool ba paré doon yaay nak nga koy dundé dund ko ci ci mbékté nak dund ko parce que dama xam lima jur dama ko dund ci mbékté théâtre bi mom théâtre la rek rôle la rek luñ la jouer lo rek lool ngay def mais du sa du fekk mu nek sa jikko luñ la jouer lo rek lool buñ la jox man mako ñëk ci art lool buñ la jox mom rek ngay jouer mais du fekk mu nekk sa jikko dinañ la jox dóor boo xam ne du nekk sa jikko mm-hmm. waaw liggéey la rek liggéey la liggéey la rek comme liggéey yëpp. waaye comme sànq li nga li nga junni ko sa biir ay wax parce que tey gis naa nabu fi mu ar ci aar daanaka fi mu ci fecc dama bay feccal artiste bu Ndour di feccal Wally Seck mhm. joué ci série boo xam mën naa ne tey bokk na ci série ñu gën a ci Sénégal mhm. waaye ba dëkk ci banlieue bi di fi yeewoo di fi jóge di dem tournage bari na ñoo nabu moo leen féete kaw ci aar waaye biñ biñ biñ génnee tuuti ñoom dañoo génn banlieue bi dem dëkk ci yeneen cité yi dëgg la dëgg la mu bëgg nag banlieue bi nag waaw bëgg ko lool ci xolam na am ci banlieue bi moo tax ma am ko kon boog damay fonk banlieue bi waaw dafa dafa fonk banlieue bi waaw dafa fonk banlieue bi wax dëgg yàlla waaw mënoon na dem luyee ji feneen nekk ci leneen mais defu ko affaire bi jom la rek ak fulla ak fayda jom ak fula rek ak fayda tubaar fukkaat la macha allah jom la rek ak fula ak fayda ko ñaanal yàlla la fal ko cat rek yokk ko nag may ko ndam lépp lu muy séntu ci aar bi yàlla na ko yàlla may ci barke Seydina Mohamed. bu kenn xool meer ah? bu ko kenn xool kay. xool bu ko kenn xool de. mi ngi xool meer bu ko xoolee mu door ko bal de. Ah, waa lu leer. Ah. kii moom. bu ko kenn xool. <laughs> yaay faal. waaw. Ah, nabu moom léegi yow looy wax nabu papa. nabu kay man dama koy ñaanal rek parce que nabu sama nabu la man particulièrement man waaw sumu ay complice la ñu man ak moom quoi vraiment suma waay la am na fu ma féete waaw même sax maire bi sax buy déconné sax man lay àndal ah. waaw waaw lu leer waaw ak lu mu bëgg-bëgg yaayam moom uh-huh. non elle est toujours derrière waaw moom kay ca kow ci kanam rek. vraiment tey mu dugg muy métier bu xaw a doy waar surtout maa ci jigéen yow loo koy wax. non moom xam nga moom aar bi moom c'est toujours comme ça day am ay revers quoi comme ni ko yaay ji waxee rek bon nit ñi ñu lay gisee ah ak réalité bi ngay dund bon ñi nga nekk rek ñoo la mën a xam voilà mais nit ki nga xam da lay xool nii rek gis la nii rek moom du mën a comprendre quoi da lay juger rek comme ça mhm. waaw noonu la mais fekk na moom nag ah moom melul noonu quoi. vraiment mu ngi toujours ci booru yaayam yaayam la gëm yaayam la bëggu yaayam lay toppatoo waaw vraiment. fekk la fii ci anniversaire nabu Leye comme yow yaay seen kilifa ñoom ñëpp tey ginnaaw buñ la nuyoo jaar la ba pare ñu fekk la fii tey buñ la doon wax nga wax ñu tuuti ci seen doom ji di Nabou Leye loo ñuy wax. Hmm, Nabou Leye rek lu tax ma bëgg ko dafa bëgg yaayam ba pare nag respecté papaam ji lu mu am ñoom ñoo ko moom franchement parler te xale su bëggee ay waajuram rek. yow soo dee nit soo ko gisee ba xam ko rek da ko war a bëgg loolu moo tax bu mu nee ma tey damay anniversaire dama am naqar sax mais dama teg foofu yëpp ñëw ci anniversaire am yàlla xam na ko dafa bëgg ndeyam parce que man xale bu bëgg yaayam rek dama koy bëgg waaw parce que waajur moom mooy euh, sàmm njabootam lu ma ko ñaanal rek day am. parce que li ngeen wax li koy firndeel mooy sànq damaa dem ci maire ci koñ bi fekk leen ñu toog ma leen di tooñ man leen yéen maire dégg naa Nabou Leye bu leen rombee du nuyoo maire dañ maa bëggoon a dóor ñoom <laughs> waaw kooku dëgg la bilaay de yenn yi bëccëg du ñuy toog fële di waxtaan mhm. waaw day toog ba saag jënd ay boisson rek ñëw indil ñu ndeysaanam bilaay bilaay xol bu baax la yore macha allah macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat rek yàlla na ko yàlla lafal cat te iir ko waaw yàlla na ko yàlla lafal cat te iir ko vraiment